chers euh, auditeurs de Sene Info euh, tey encore euh, docteur mu ñëwaat euh, pour vous présenter benn numéro si émission hebdomadaire bi ñu leen di defal aujourd'hui donc dinañu wax si benn feebar boo xam ne depuis deux mille dix-neuf mi ngi. Euh, lëmbee Sénégal lëmbe àdduna bi euh, je veux parler aujourd'hui de Covid-19 euh, particulièrement aujourd'hui dama bëgg ñu wax ci tuuti parce que euh, ces temps-ci ci suñu consultation yi euh, si suñu hospitalisation yi donc dañu remarquer benn recrudescence donc euh, on a remarqué que cas yi dañu commencé dellusiwaat dañu commencé augmenter donc euh, surtout pour euh, tirer benn euh, sonnette euh, d'alarme benn sonnette d'alarme non seulement pour euh, le personnel médical pour la population mais également pour les autorités les autorités et surtout le ministère de la Santé et de l'action sociale donc euh, pour euh, imprégner leen ci euh, Covid-19 damay commencé comme euh, ni mu leen ko waxee rek ci le principe de l'émission waxoon naa leen ko damay définir euh, pathologie bi Euh, ma jox leen euh, quelques éléments d'épidémiologie pour vous donner son importance au Sénégal et à travers euh, le monde euh, ensuite ñu def les manifestations nit ki su amee feebar bi lan lay yéeg ñu xool les complications en général lan la ko mun a jural et ñu terminer par euh, jox leen benn ébauche de traitement donc benn ébauche de traitement euh, c'est pas parce que dañ leen di jox benn ébauche de traitement que vous ne devez pas aller voir les professionnels de santé bu fekkee am na loo xam ne lu leen jaaxal par rapport ak euh, euh, feebar bi c'est mieux donc de vous adresser aux professionnels de santé comme ça en ce moment-là la prise en charge elle est optimale foofu nga ni gën a mun a gañee pour euh, récupérer donc euh, seen euh, santé donc pour définir Covid-19 donc Covid-19 feebar buy wàllaate la donc on appelle ça une maladie infectieuse lii di ko ah, benn virus la ñu koy wax SARS sars cov Euh, ñu ngi ko découvrir en deux mille dix neuf euh, en Chine donc euh, la plupart des personnes ñi nga xam ne ñoom ñoo amoon feebar bi wala ñoo xam ne ñu ngi continuer di ko am dañu doon am ay signes respiratoires donc loolu moom moo nekkoon au devant du tableau mais. su ma leen joxee yeneen manifestation yi vous allez vous rendre euh, compte que am na léegi yeneen sign yoo xam ne feebar bi mun na manifester wu par euh, yeneen signes yoo xam ne euh, soo leen deful nank mun na mun na leen nax donc saa Euh, après définition bi on va parler un tout petit peu de sa propagation naka lay def feebar bi pour law donc euh, Covid 19 euh, wax naa leen ko ñii di ko wàllaate c'est des sujets comme vous comme moi yoo xam ne dañuy nekk porteur euh, porteur du virus donc nit ki su sëqatee wala mu lii donc euh, dafay euh, def joxe germe bi ci environnement bi léegi ñi nga xam ne dañ ko jege yëpp donc euh, facilement suñu respirer gouttelette yooyu dañuy jël feebar bi et puis chaine bi dafay dafay continuer donc pour vous donner une idée de l'importance de la maladie euh, ça c'est vraiment quelque chose euh, d'exceptionnel ah par exemple ñu jox leen exemple Sénégal rek exemple Sénégal entre deux mille vingt et deux mille vingt deux euh, compté nañu on a posé des le diagnostic de plus de soixante quinze mille cas. donc c'est pas quelque chose de négligeable et si soixante quinze mille cas yooyu euh, entre deux mille vingt et deux mille vingt deux il y a eu euh, plus de mille neuf décès et le Sénégal était parmi les champions on a euh, posé des actes et puis suñu politique de prévention bi ça a été tellement euh, efficace qu'on a été parmi les pays les moins touchés. Euh, les pays les moins touchés. Euh, comparaison pour comparaison, à travers le monde, par exemple, il y a eu millions de sujets qui ont été touchés. Donc 232 millions de sujets. C'est combien de fois la population du Sénégal donc euh, je vous laisse euh, calculer et parmi ces 232 millions il y a eu 4 millions de morts euh, vous de morts dans la population euh, sans préserve donc euh, je rappelle la population sénégalaise elle est de 17 millions d'habitants 17 millions d'habitants bon bientôt on va atten atteindre les les 18 euh, millions d'habitants donc euh, loolu jar na bàyyi xel euh, maintenant pour ñu xam Covid-19 naka lay euh, comme ça de telle sorte que si vous êtes chez vous euh, vous-même ou bien quelqu'un que vous êtes proche mu présenter yenn euh, signes yi en ce moment-là je pense que bu leen euh, jéem a def les apprentis sorciers ñëw leen rapidement vers nous les professionnels donc de santé comme ça euh, très rapidement dinañu xam ñun fan nañuy teg seen suñu tànk pour euh, mun a régler le plus rapidement donc euh, seen euh, problème donc manifestation yi dañ koy tenk sous le nom d'un syndrome on appelle ça le syndrome grippal syndrome grippal ça veut dire que c'est un ensemble de signes yoo xam ne Euh, dafay nuroo grippe grippe ñëpp a ko xam ah grippe ñëpp a ko xam euh, d'ailleurs euh, dinañu def benn émission boo xam ne spécialement pour euh, comme ça euh, lépp dina leer ci euh, boppu population boppu population bi yëpp donc. Euh, Euh, feebar bi donc Covid 19 ça se manifeste donc par ce qu'on appelle un syndrome grippal donc syndrome grippal bi c'est un ensemble de signes et parmi ces signes on peut citer des maux de tête on appelle ça ci suñu jargon des des céphalées donc di nga am ay courbature di nga am benn sensation de fatiguement boo xam ne c'est inhabituel di nga am une euh, perte de l'appétit di nga am une perte également brutale de euh, l'odorat euh, parfois di nga am une diarrhée une diarrhée qui peut être liquidienne dans la majeure euh, partie des cas euh, mun nga am ce qu'on appelle des signes euh, respiratoires des signes respiratoires ça peut être euh, euh, par exemple une toux, hein, une toux le plus souvent qui est sèche, euh, on peut avoir euh, des difficultés respiratoires. On appelle ça, si c'est du jargon, une dyspnée, une dyspnée donc euh, qui peut évoluer jusqu'à donner ce qu'on appelle une euh, détresse respiratoire. Donc en ce moment-là, le sujet a Euh, besoin donc dans le traitement d'oxygène. Euh, donc euh, vous vous rappelez, il fut un moment, euh, ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'encre. Euh, nit ñi suñu defee def seen détresse ñëpp dañuy defe ne ne donc oxygène bi ñu leen di jox moom mooy euh, moom mooy nekk traitement bi donc moom mooy nekk di régler traitement bi alors que c'est une Euh, benn part la donc euh, si si si si si si traitement euh, global bi donc essentiellement donc ce sont ces signes qu'il rechercher bu fekkee nit ki bu ngeen ñu wax leen ndax Covid 19 la wala leneen la et il faut poser le diagnostic le diagnostic. euh, par exemple je vous ai dit au Sénégal il y a eu quinze mille cas sur ces soixante quinze mille cas donc ce sont des cas qui sont euh, confirmés euh, on ne peut pas euh, parler des cas qui n'ont pas été vus dans des dans les structures euh, de santé donc soixante quinze mille cas yooyu le diagnostic bi ñu koy posé soit dañu leen defloo ce qu'on appelle des PCR soit dañ leen defloo des tests euh, euh, direct soit dañ leen defloo ay scanner ou bien ñu associé PCR scanner ou bien test test bi euh, avec le scanner donc euh, ce sont ces éléments donc qui nous pour permettent de poser le diagnostic et de démarrer donc le traitement pour le traitement, il y a ce qu'on appelle un volet curatif et un volet préventif. Pour euh, le volet préventif, euh, il y a, on avait préconisé donc la vaccination. Donc euh, plusieurs vaccins nous avaient été et, et jusqu'à présent nous euh, nous sont proposés vaccins yi ñu war a def pour Covid-19. Donc, euh, il a beaucoup. Et ça également, ça a fait couler beaucoup d'encre. Ça a fait couler beaucoup d'encre parce que euh, scientifiques yi, jusqu'à présent, am na ñoo xam ne euh, ils sont pas contre mais ils sont pas pour la vaccination donc euh, jusqu'à présent dafa nekk benn benn sujet à polémique donc les gens discutent les gens essaient de trouver benn point d'accord mais jusque-là donc les gens euh, n'arrivent pas à se mettre euh, d'accord donc euh, vaccination bi c'est toujours donc un sujet à polémique mais toujours est-il toujours est-il il y a Euh, ce qu'on appelle euh, les mesures barrières. Là, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, euh, les mesures barrières, c'est le port de masque, la distanciation sociale, c'est-à-dire euh, bañ a jege sa morom euh, sur une distance entre 1,5 et 2 mètres. donc la distanciation sociale, l'utilisation de gel alcoolique. et puis euh, le lavage également le lavage des mains par euh, du savon par euh, des gels ainsi de suite euh, ça essentiellement donc euh, c'était le volet euh, préventif et pour le volet curatif le volet curatif c'est-à-dire nit ki ñu poser diagnostic bi et puis ñu tegal un traitement Euh, proposé woon nañu des des traitements tout à l'heure wax naa leen waxu oxygène ah oxygène bi donc euh, euh, am na place am donc amoon na place am et jusqu'à présent am na place am dans la prise en charge des sujets Covid positifs et qui présentent des signes Euh, respiratoire, notamment une détresse euh, respiratoire. Euh, on avait proposé, on, enfin, on nous a proposé euh, une association, euh, l'hydroxychloroquine associée à de l'azithromycine. Donc, euh, man personnellement, personnellement, je vous dis, beaucoup de malades, je les ai reçus. je les ai mis sous cette association-là, hydroxychloroquine, euh, azithromycine. Et c'est une association, bon, man chez mes malades, euh, ça marche. Bon, il y a qui vous diront que ça ne marche pas chez, chez eux, mais man, c'est ma expérience euh, euh prof, euh, professionnelle. j'ai vu que vraiment euh, ça a am na yeneen volet donc euh, de traitement yu ñu utiliser notamment euh, une réhydratation chez des malades qui sont déshydratés et une renutrition chez des malades donc euh, donc euh, qui sont dénutris bon on va pas trop euh, insister sur ça, mais quand même, il y avait également euh, un des traitements particuliers sur des sujets âgés ou bien donc euh, sur des sujets euh, qui ont d'autres pathologies associées, notamment les diabétiques, euh, les hypertendus, euh, les hypercholestérolémie, euh, ceux qui ont une hypercholestérolémie. et puis euh, une insuffisance rénale ainsi de suite les personnes âgées également j'insiste sur ça donc ñoom euh, également leur prise en charge était un peu particulière donc c'était une prise en charge euh, particulière donc euh, le donc les traitements euh, toujours par rapport au cas donc dafa doon euh, nekk loo xam ne Euh, ça dépend donc euh, des cas donc euh, loolu moo tax je vais pas trop insister sur les traitements mais toujours est-il que au Sénégal donc on a eu une une bonne euh, méthode hein, une bonne stratégie et c'est ce qui nous a valu que donc euh, on a Euh, eu des un nombre euh, plus restreint par rapport à d'autres pays, même à des pays euh, dits développés, hein, à des pays donc euh, dits développés. Donc euh, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Dama bëggoon euh, également joxe sama avis tuuti. sur euh, ce qui se passe actuellement dans le Sénégal. Je ne fais pas de la politique, euh, mais dama gis ne que ne actuellement ça ne va pas au Sénégal am na benn impolitesse benn. indiscipline boo xam ne ku nekk lu la neex nga wax ku la nekk lu la neex nga def euh, c'est pas ça qui va nous faire avancer Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Sénégal ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp jàmm bi nga xam ne moom moo fi amoon moom la fi maam yi doon ñaan jàmm bi nga xam ne moom nañu xam jàmm bi nga xam ne ah euh, moo ñu dikk je pense que ñun ñëpp tout un chacun euh, war nañu def suñu mea culpa ñu seetaat suñu bopp tuuti ah pour euh, ñu mun a jëmale suñu réew bi kanam Euh, maa ngi fàttaliku Coupe d'Afrique biñ ko gagné gis ngeen kontante euh, bi envergure boobu ah kontante euh, boobu amoon mais cest dafa neexoon ah, mais léegi regardez ce qui se passe ñëpp ku nekk mi ngi saaga ku nekk dans les réseaux sociaux dans. mais c'est-à-dire c'est pas ça qui peut nous faire avancer def leen encore tuuti seen euh, seen euh, introspection ah ku nekk seetaat euh, mor kiwam façon bi muy comporté damay xool ci tali bi ah automobiliste yi nu ñuy comporté mais ku nekk nu la neex ngay dawalee ah et balaa may balaa may dee rek ñu laal la wala ñu yàqal la benn wax ah nañuy am ñoom ñëpp ci seen gémmiñ maa ngi jéggalu c'est-à-dire nit ñi nañu seet seen bopp dal leen jéem leen euh, dell dell si waat seen xel la dernière fois maa ngi romb euh, BRT bi ci travaux yi ma gis ñuy sotti ay salte di sotti ay salte ba mu def benn benn taa dama ne mais attends <laughs> ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk foofu di sotti mbalit bi mais bés bu tale tawee mais loolu yëpp seen kër yi nañuy de nañuy dem après c'est beau jour les dégâts après inondation la après salte yëpp seen biir kër yi après feebar yëpp seen biir kër yi mais cest euh, li ngeen di defar defaru ko pour. Euh, waa gouvernement bi wala keneen ak keneen seen bopp ngeen ko defaral donc euh, dellu si laat leen seen xel ah, ngeen xool noonu leen def pour euh, ngeen jéem a tappe xol yi ah rafetaatal jukko yi ah comme ça ñu xool ni ñuy def jëmalaat suñu réew bi kanam ma wax leen ko encore Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar il faut pas accepter que Massamba wala Mademba teg fii wala tegal ñu loo xam ne après ñun ñëpp dañuy am regret. je remercie l'équipe euh, euh, qui est là donc Abdel euh, Diallo euh, le technicien le caméraman monsieur Ndofène Diouf euh, également qui est un peu souffrant aujourd'hui mais j'espère que c'est pas le Covid ah Ndofène euh, qui est un peu souffrant aujourd'hui, mais une pensée donc euh, pour lui. Je vais pas terminer sans remercier euh, les enseignants, tous les enseignants donc de la faculté de médecine et de pharmacie, nos maîtres. Donc euh, on ne cessera jamais donc euh, de les remercier. Merci également à deux de mes doyens. Euh, monsieur Mbaïfal, donc, euh, qui est mon doyen de queue, avec euh, madame, donc euh, Maman Koumba. Donc, euh, Maman Koumba, bonjour. Et je remercie également un autre de mes doyens, monsieur euh, Lamine donc, qui est toujours là, qui m'encourage et qui me donne donc beaucoup de conseils par rapport à toutes les activités que je mène. donc euh, ñu ngi leen di dox euh, jox euh, dig daje la semaine prochaine le mercredi prochain et toujours ñu ngi leen di rappeler seen info rek arobase gmail point com bu fekkee am ngeen lu leen jaaxal ou bien ay question yoo leen di poser mun ngeen ko poser foofu donc euh, dinañu kontaan trop pour andi leen ay réponses par rapport à vos inquiétudes par rapport à question bi ñu wax tey merci beaucoup au revoir et à la prochaine merci